رب العالمين الخير في محكم كتاب المجيد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مبوكي جلدي di mbokki talbi yi سين émission ليرال euh, émission leeral waaye mbokki الشيخ maam جنة رضي الله عنه ak euh, bokk yi nga xam ne ñooy waa daari islamique euh, te sëñ Mahfouz si jiitu ko waaye ak yeneen soxna yi nga xam ñi nga ànd ñoom ci jataay bi yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax man Nabi Gaaj di leen ziyaare te di leen ndokkeel ci seen émission yu am solo yi euh, di nuyu rek asatis yi nga xam ne dégg naa sëñ ci defal tudd leen mooy ni sëñ Mbàkke ak ku mel ni sëñ euh, euh, Ibrahima Sawru ak yi leen borom xam-xam yi nga xam ne yëpp ñu ngi ànd ak ñun ci jotaay bi maa ngi leen di nuyu bu baax euh, te di leen ziare tey am cant yoo xam ne am na fu mu waaye amul fu mu yem ci Sidi Fall ci yittewoo gi nga xam ne yittewoo na ko xam-xam waaye tim ni nga xamee ne noonu la taxaw fii ci Italie rawat naag fii ci gox bi ñu nekk Bergamo ci mbooleem lii boole jullit yi rek nga xam ne bésu Seydina Mohamed bii taxawaay bi mu ci am daanaka mën nañu wax ne mooy moteur bi kon nag ñu ngi ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dëgëral te yàgg suñ kanam ndax mu ngi liggéey liggéey bu am solo ci lislaam euh, kon bokk loolu xam naa ne mooy ab nuyoo insha allah tabaraka wa kon ñi daal di dugg rek ci tënk ko tuuti ba pare bàyyi leen ligne bi waaw euh, bokk yi xam nga euh, événement bi xew muy li ñuy tuddee coronavirus muy feebar boo xam ne fii ñu wax ak yow jaaxal na àddina bi yépp ndax euh, lim rayugum rek ci jamono yi ñaari junni tegal na waaye ñi nga xam ne feebar bi jàppal na leen kenn xamut lim bi nu mu toll te itim sax am na boroom xam-xam yoo xam ne dañu wax na ndax Chine ndax sax xaqiqatan ndax liy faatu ndax mi ngi koy communiquer maanaam mi ngi nombre bi muy joxe exact ndax nombre boobu la ak nombre bi muy joxe ne ñii ñooy ñi nga xam ne feebar bi jàpp na leen est-ce que sax chiffre yi muy joxe ndax wér na euh, su ko defee nag xew-xew bi nag du dul dafa dul xew-xew rek boo xam ne maanaam ci siin rek la mos daal maanaam bu ñu xool ci àddina bi bëri ci histoire doomu aadama xew-xew yu ni mel euh, bii nag boroom xam-xam yi dañoo nekk ci di ko jàngat ñu ne li li wàcc Chine lii ndax dafa nekk balaa un min maanaam nekk nattu boo xam ne dafa jóge ci yàlla maanaam nattu boo xam ne mbas la mbas la ndax boroom bi tabaraka wa wax na ci suratul baqara aaya cent cinquante cinq na wala nabluwannakum bi cheyin min al xawfi wal juuci wa naqsin min al amwali wal anfusi wa samarat wa bashiri sabirin borom wa taala nee danaa leen nattu ci dara ci ragal doomu aadama yi danaa leen nattu ci ragal wal ak akub xiif maanaam gis nañ ba ay sécheresse ak Euh, maanaam ñàkk goo xam ne yàgg nay ba àddina soso ba léegi ñu ngi koy gis léeg-léeg muy dal ci yenn dëkk moo tax mu ne bi shay min al xawfi wal juu ak ñàkk wa naqsin minal am amwaal ak it crise économique maanaam ñàkk alal maanaam ñàkk wa naqsin min al amwaal wal anfus wal anfus ak ci seeni bakkan yi mooy du demee ni comme ni feebar bi dalee ñu nga xam ne li muy faat ci bakkan kenn xamul tolu wa samaraat ak it mbay moo xam dañuy dem ba jàpp mbay mi xëy na dana baax mbay mi daal di far doxee fa jaar yàqu maanaam mu mel ni kon économiquement loolee maanaam ak yàqute lay doon goo xam ne day maanaam fës ci wàllu dundu doomu aadama moo tax mun na wa samaraat mu teg ci nag ne wa bashiri saabirin allazina isa asaabatum musibatun xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon borom bi tabaaraka wa taala leeral na ci alquran ni nattu dana dal doomi aadama yi wala nattu danaa ko teg ci doomu aadama yi euh, léegi nag dañu wax ne nattu yooyu léeg-léeg yàlla amaana da ciy corriger doomu aadama yi ndax dafa waxaat feneen ne fa asaaxa allahu libaasal joohi wal xawfi bi ma kaanu yasnaun yàlla nee na euh, day léeg-léeg doomu aadama def dox doxin woo xam ne du doxin wu tegu ci yoon man yàlla ma nattu leen ci xiif ak ragal ci li nga xam ne moom lañ doon jëf am ñu ne ndax xew-xew bii xew ci Siin ndax iqaab la iqaab muy mbugal ci xew mbugal mu yàlla wàccee la ci Siin wala ay ay ay ay ay la yoo xam ne ay laaj la yoo xam ne yu ñuy laaj di ko jàngat ndax lii daal fii ndax mbugal mu yàlla wàccee ci ñoom la ndax xam nañ ne Chine am na parti boo xam ne ay jullit lañ nekk fa ñi leen ñi leen wax ñoom euh, Uyghur ñu nekk ci benn barab benn mantiqa ci Chine waaye ñoom ay jullit lañ waaye gis nañ chinois yi ba ci gouvernement chinois ni mu leen di traité wax nañ ne presque lu plus de un million yoo xam ne ñu ngi leen tëj ci ay camp de détention yoo xam ne di leen fa def loolu di leen fa mbugal mbugal mu métti te itim loolu lépp Chine di ko def tegu ko fen pour jàpp dafa leen daf maanaam pour justifier li muy def dafa wax ne ñooñu ay terroriste lañ moo tax ci mois d'août bi passé am na ci jumaa joo xam ne gouvernement chinois ñoo jël euh, décret ne dañ koy tëj maanaam pour wan la mbooloo moomu ci biir fii ñi ngi fay dund dund goo xam ne dund gu métti te dara waralu ko nag loolu rek gëm yàlla gi gëm yàlla ak nekk gi nekk jullit ak yeneen xew-xew yoo xam ne ñin ci faat kenn xamul nuñ toll te loolu lépp àddina bi ñu ngi ne tekk maanaam ñiy tuddee les droits de l'homme daanaka doo dégg ñu àddu ci wala bokk bu ñuy àddu du du bokk bu ñuy àddoo ci yeneen ñoo xam ne dañ leen dañ leen faat masalan tey bu doon ab français lañ lañ rey ba ab américain nañ koy waxee duñ ko waxee par rapport bu buñ rey buñ rey ak jullit yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne ñu ngi ko ciy jàngat ñu ne kon ndax xëy na noonu Chine di traité jullit yooyu moo tax yàlla sànni leen ay mën nay mbugal ci aw xeet lu ni mel moo tax Euh, ab ñoo xam ne dañoo wax ne ndax duwoon na loolu moo waral lii ndax mbugal moom gis nañ ne ci jamono yonent yi gis nañ ne diggante yonent yi ak seen xeet yi lu mel noonu maanaam ba tey mbugal ci ay natt yoo xam ne yoo xam ne la wàccee ci ñoom boo demee ca suuratul Aaraaf ay 133 da nga dégg borom bi tabaaraka wa taala ne fa arsalna alayhim toofaana wal jaraada wal qummala wad dafaadiya wa damm ayatin mufassalatin nee na daal bani Israël ba nga xamee ne Moussa ñëw na woo leen ñi bañ féttéerlu nekk seen mbon ga ci sabab seen mbon ga ak ñàkk gëm Moussa ca la leen yàlla maanaam sànni toofaan mooy mooy mooy ndox moo xam ne day bëbb rek ndox mu ëpp mu xam ne lu mu fekk di koy ravager mu mel ni comme li ñu tsunami waaye wa jaara mu andi leen ay soccat yoo xam ne luñ mosaan a bay socc bi lekk ko wal xuma la mu mu pare ci loolu sànni leen ay teeñ war dafaade bi loolu jeexee mu sànni leen ay mbott nga xam ne booy lekk sax boo moytut lekkal mbott war damm gannaaw ko mu def maanaam lépp ndox muñ bëgg a naan rek mu ko deret yooyu yëpp nag alxuraan ne ayatin ay kéemtaan la mu fasalaatin yoo xam ne yu wuute yu ko tey tim yooyu yëpp benn bu ci nekk rek bu ko moosa defee rek dañ naan ko tey lii de boo ñu ko teggalee rek ñu gëm la bu moosaa teggee loolu rek ñu indiwaat leen am ñeneen ñu laaj ne ndax mandarga bii xew wala coronavirus bi ndax dafa bokk ci li ñu tuddee alaamaatu saa mandarga yi nga xam ne day waral ne mandarga yi bis pénc ndax gis nañ ne ci àddina bi ci jamono bii yonent bi alayhi salaatu salaam dafa waxoon bu ñu demee bu mu jóg jamono da gis ne mandarga yi wane ne àddina baa ngi waaj a tukki mooy dañuy gis ne masalan lu mel ni ay catastrophe naturelle maanaam kaarisatu tabiiya lu mel ni gis nañ bu yàggul sawara soo xam ne ay weeri weer la la taqoog waa Australie nga xam ne bu dugutoon ak borom bi tabaaraka wa taala taw ba mu wàccee sawara suy génne ci montagne di alak aw xeet di buusu dal ci aw xeet wala lu mel ni maanaam tremblement de wala lu mel ni ay ngelaw cyclone ak ay tempête ñu koy gis fu mel ni Amérique nga xam ne bu ñëwee rek day ravager moom dëkk bi yëpp ak yu mel ni feebar bii nga xam ne jii moom li ñu tuddee coronavirus yi yëpp nag ay mandarga yoo xam ne ak it li ñuy gis ci jamono bii nit ñi li ñuy faatu ak ci accident yooyu yëpp ay mandarga la yoo xam ne day junj la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne buñ demee ba nga xam ne mujj ak jamono yu mel nii maanaam maanaam kaarisatu tabia dafay bari yooyu yëpp nag borom xam-xam yi di jàngat am ñu ne nag ndax duwul na nag ñoom li li waral lii mooy comme lenn ci ay boroom xam-xam yoo xam ne biñ jàngatee dañoo gis ne feebar bii mu ngi jógee ci benn bàyyi ma te itam ñoom chinois yi ñoom daanaka lu nekk la ñuy lekk bawun dara chinois yi ñoom lu nekk la lekk léegi nag mu am benn bàyyi bu ñu tuddee la pongalem benn bàyyi ma la boo xam ne bu bu doy waar ñu ne feebar bi mi ngi jógee ci bàyyi boobu toxoo ci bàyyi boobu ñëw ci nit ñi maanaam feebar bi bàyyi boobu moo ko jox nit bàyyi boobu nit ñi dañ koy lekk rawatina nag chinois yooyu yëpp nag gis nañ ko ci ñu gis na nag ne euh, lislaam ci boppam dafa jàngale ne euh, bala ñuy ñëw ci loolu sax ñi ñi joxe rek ci feebar boobu naka lay naka lay naka lay toxoo masalan coronavirus naka lay naka lay naka lay toxoo ci nit ak ci nit ñu ni muy toxoo ci nit ak ci nit mooy ñaar ñoo xam ne dañoo laalante baa ñuy joxante loxo kenn ku ne téye sa morom ngëpp sa morom wala boog nit yor ko ba pare nokki mu génnee ca nokkeem li jaar ci ngelaw li nga nokki ko ba tey wala boog ñu ne waaje xëy masalan bu dee ci zone bay nekk ñoom nga xam ne foofu bu feebar ba maga fa dan lay boo xëyee sa loxo bi bala nga koo laal sa doo amoo droit dugal ko ci sa gémmiñ gi waaye amoo droit laal ko ci sa kanam gi waaye amoo droit laal sax sa bakkan beeg sa bët yi te fii raxasuwoo li feek raxasuwoo sa loxo yi amoo sañ-sañ laal sa cër yooyu ñu tudd kon <laughs> mu mel ni loolu am na lu ñu ko mën a jàngatee léegi nag bokk na ci ci problème yi tey jii wax nañ na feebar bi ci boppam gannaaw bi ñu xamee lii ci moom wax nañ actuellement lu mat maanaam ñaari fukki réew ak juróom-ñeent yoo xam ne feebar ba toxu na toxu na siin dugg fa bokk na ci feebar bi nag ni ñu koy xamee mooy comme dal ku ne da lay day jàpp bopp bu métti lay tàmbali ci yow nga am lu ñu mu mel nga mel ni da ngay da ngaa am tàngat waaye boole ko saqat ba pare nag mën nay mën nay laal sa maanaam lu ñu tuddee sa sa dënn maanaam feebaru dënn li ñuy tuddee feebaru pulmonaire yooyu dala koy joxe risque wala appareil respiratoire bi mu song ko yooyu yëpp da cay feeñ maanaam ngay am jafe-jafe nga xam ne saqat ak lu nekk mën na la ci arrivé waaye itam seetlu nañ ñi nga xam ne feebar bi ñoom la gën a yàpp mooy ñi gën a màggee maanaam ñi ñi nga xam ne ay mag lañ maanaam bu doon dafa jàpp gone baa mu jàpp mag da gis ki gone gi mu ëpp sens dund ci mag mi yooyu yëpp ay jàngat la yoo xam ne boroom xam-xam yi seetlu dañ ko ci euh, wax nañ ne kon buñ seetloo feebar bi ci bàyyi mu la jógee ci bàyyi boo xam ne chinois yi dañ koy lekk te itam chinois yi lu nekk la ñuy lekk xam nga alxuraan dafa indi ci ay ay ay maanaam ay leeral ci wan na doomu aadama du lu nekk rek la war a lekk borom bi tabaaraka wa taala ne yasaluunaka maa sa uxilu lahum qul uxila lakum tayibaat borom bi tabaaraka wa taala nee na yonent bi alayhi salaatu salaam dañ la laaj lan lañ daganal ci ñoom mu ne ko nee leen daganal nañ ci ñoom li teey uhillat lakum bahimatul an'am l'islam wax nañu yan lañu war a lekk moo xam ci bàyyi mi yi ci bàyyi mi yi am na ci bàyyi mi yoo xam ne yu ñu yu ñuy lekk la waaye am na ci bàyyi mi yoo xam ne lislaam da ko da koo tere ñi di ko lekk lu mel ni mbaam xuux waaye itam euh, am na lekkin yoo xam lekk yoo xam ne tam lislaam da koo tere lu mel ni maanaam deret waaye lu mel ni médd moo tax Euh, l'islam da ngay gis ne sax ngir éviter deret jooju parce que xam ne deret mooy milieu bi nga xam ne daanaka ci lay micro yi di multiplier ci lañuy jur ci lañ ci lañ dëkk tim ndax li koy firndeel mooy tey boo feebaroon boo demee hôpital pour ñu xam sa feebar li ci euh, li gën a efficace pour ñu xam sa feebar bi mooy ñu jël sa deret moo tax l'islam ne li ñu tuddee ak dammul masfoa moo tax l'islam daganal rendi daganal rendi fokk rek ñuy rendi ngir deret jooju nga xam ne bu ñu bu ñu rendee mooy génn loolu mooy damul masfo deret jooju nag moo ëmb maanaam eh, li ñu tuddee bactéries yi ak virus yi ak mboolem xeeti feebar yépp ci la ñuy dugg ci wàllu njanaaw itam am na ci njanaaw yoo xam ne lislaam da koy tere par exemple tey lu mel ni lu mel ni lu mel ni tan nga xam ne day lekk médd wala lu mel ni ay céeli dafa am façon njanaaw yoo xam ne maanaam dañuy rëbb njanaaw yu doy waar njanaaw yooyu eh, lislaam daanaka da koy tere ak itim yonent bi alayhi salaatu waxoon loo xam ne maanaam dafa joxoon solution dafa waxoon ne te xam ngeen ne feebar bi ci biir siin la amee waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jàngatam ak ci li ko yàlla xamal te yàlla moo ne wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuhaa yonent bi di wax lu dul rek lu mu wax dañ ko ko wax yu moom yonent bi alayhi salaatu waaw bàyyi mu baag ni ma di ko gis dafa waxoon ne isa samitum bihi bi ardin fala tuqaddimu alayhi wa isa waqafa bi ardin wa antum biha fala taxrujo firaran minhu yonente bi alayhi salaam dafa wax ne feebar soo amee ci benn dëkk muy mbas comme mu mel ni coronavirus bi dëkk bi mu am nee na dëkk boobu ba mu fa amee bu ngeen bu fa bu kenn tukkeeti jam foofu gis nga tey boo xoolee àddina bi yëpp ñu ngi appliqué loolu li yonent bi jàngale woon nga xam ne junni ak ñeenti téeméer yu teg la yonent bi jàngale woon loolu tey àddina bi ñu ngi koy pratiquer bu kenn tukki jëm siin yonent bi loolu la waxoon mu ne nag bu fekkee na feebar bi dëkk bi mu ne isa waqa bi ardin wa antum biha fala tuxrijoo firaaran minhu su fekkee dëkk bi mu nekk nag te yéen ngeen nekk fa dafa dund bu leen génn ngir daw feebar bi parce que yonent bi li muy xalaat mooy amaana yow mii daw génn réew mi fekk feebar bi laal na la nga yóbbaale ko boo demee rek yokk ko aw ay te itam loolu mooy li dal loolu mooy li dal chinois yi fi ñu toll feebar bi Chine dong la a nekkoon la départ mais tey mi ngi ci ñaar fukki réew ak juróom-ñeent yoo xam ne yëpp feebar bi dafa dugg te la ko waral mooy ña ña nga xamee ne feebar ba dalee na laaloon ci Chine dañoo génn yóbbaale ko te loolu la yonente bi alayhi salaatu salaam tere woon kon gis nga jëfee ndigal yonente bi alayhi salaatu salaam bu ñu jëfe woon ndigal bi yonente bi alayhi salaatu salaam digle kon yaakaar naa ne feebar bi ni muy propager ni mu gaawee di dugg fu nekk gaawaay boobu kon maanaam du ca àgg kon day yem rek fi mu fi mu fi mu war a nem yonent bi alayhi salaatu salaam nag jàngale nag xam nga dégg ngeen na léegi ah, bu dee ci wàllu environnement bi xam nga euh, xam nga doomu aadama euh, dafa yor responsabilité bu bu mag mooy ne xam nga borom bi tabaaraka wa taala dafa wax ci alxuraan ne inni jaailun fi inni jaailun fil ardi xalifa maanaam dafa wax ak malayka yi ne leen damay def ci kaw suuf koo xam ne mooy sama xalifa xalifa boobu nag mooy doomu aadama dañu wax ne sax olamaa euh, yi dañoo seetlu ne ba yàlla ne inni jaailun fil ardi xalifa ñu ne aadama la joxoñ waaye bi bu ñu xoolee aadama responsabilité boobu dafa rëy ba nga xam ne turu aadama ci boppam boo xoolee araf yi taqaloowuñ waaye gis nga daawud mi yàlla wax ne yaa daawuda inna jaal naaka xalifatan fil ardi yow yonte yàlla daawuda def nañ la ngay xalifa ñu ne loolu responsable bi dafa rëy ba nga xam ne yonte yàlla daawuda at na ko moo tax boo xoolee daawuda tur wi arafam yi comme aadama araf yi taqaloowuñ mu soog di wax nag mu généraliser nag ne huwa allazi jaalakum xalaayifal ardi yàlla def naa leen daal di boole nit ñëpp na leen def naa leen ngeen sama ku kuutaale maanaam ngeen di ma wuute ci kaw suuf donte yàlla absenté dafay wane responsabilité bi nga xam ne moom la doomu aadama am ci kaw suuf borom bi tabaaraka wa taala nag wax ak doomu aadama ne ko nag wala tufsidu fil ardi baada islaiha bu leen yàq ci kaw suuf gannaaw bi ngeen fekkee suuf si ñu liggéey mu mu parfait mel ni mu war a mel daal di waxaat ne inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa na an yahmilnaha wa asfaqna minha wa amala al insanu innahu kana zaluman jahula yàlla nee na Euh, li ñu tuddee maanaam l'humanité dañ koo gaaral montagne yi ak asamaan juróom-ñaar suufu juróom-ñaar ñu ne responsabilité wu at nañ ko doomu aadama moo yenu kon nag doomu aadama mooy saydul kaw nu mboolem li yàlla bind doomu aadama moo ci gën a foor kon doomu aadama boobu mooy responsable moo yor responsabilité bu mag ci kaw suuf si yàlla wax ci alxuraan ne ne doomu aadama وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا تاغتالنا لين لي سي اسمان جيروم نيار اك سوفي جيروم نيار لين وير لي سي نيك يالا داكو تاغتال دوما ادم لو ليب بور دوما ادم دوندو سي اك ليز دوندو سي جام واي نك دوما ادم بوبو نك ناخ ريسبونسابيلتي بوبو خام نكو يالا واخنا ني واخنا ني ليغي ديغنتي ا اوكسجين بي ني نوكي nga xamne tay Eh, nga xam ne nga xam ne diggante oxygène bi nga xam ne ñun moom lañ soxla te bala ngaa xam ne oxygène boobu moo am solo tey nga jël nit du tëj ki ci benn verre boo xam ne ngelaw du ko fekk du ko fekk da ngay gis ne oxygène bi mu yor moom doon eh, maanaam oxygène boobu mu mu dese woon ci bopp ci jëmmi boppam bu jeexee rek te ngelaw dugg siwul fekk ci barab boobu dangay ngay gis ne day faatu gis nga sax astronaute bi ñuy dem ci jaww ji bu ñuy dem dafa am dafa am masque yi ñuy sol ak butéel yi ñuy boot butéel boobu oxygène bu ñuy nokki mo ci nek ci seen biir navé yi sax da ngay gis ne fofu da ngay gis bu dé ci jawu ji am na espace bo xam bo boo liñ tuddé al tuddee alxilaaful jaww yi foofu oxygène fofé ñi nek ci seen biir navé yi ci biir navé bi ci bopum dañ ko manam dañ mo doon bu ma a mën wax dama naan dañ ko dañ koo def mu fess dell ak oxygène bo xam mom moom la sino rek ñu faatu kon loolu day wone ne importance oxygène mais oxygène boobu wax na la la oxygène boobu dafa am quantité bo xam moom la yàlla limité te boroom xam-xam yi dañuy yéemu bi ñu gisee quantité bu oxygène boobu muy vingt et un pour cent mënta yokk mënta wàññeeku ñaari ba mu ci def rek di safaan ci doomu aadama waaye nag comme garab yi ñoo koy biir yàlla nag abal li ñu tuddee bàyyi mi muy ñun ak xar yeeg nag yeeg bëy yeeg yooyu su ko defee bu ko garab gi sànnee ñun ñu jël ko ñun moom la ñuy jëriñoo ñun bu ñu ko xëccee mooy dem ci barab bi ñuy wax ci si ñun mito mitochondrie foofee nag maanaam oxygène boobu maanaam lekk gi ñuy lekk yooyu yëpp mooy mooy moo koy moo moo ay dafa am lu ñu tuddee ay tafaawulul kimia ay réaction chimique yi muy def mooy waral ñun ñi mën a dundaat maanaam suñ suñ maanaam ñu mën a dund waaye itam garab gi ci boppam dioxyde de carbone bi nga xam ne ñun moom la ñuy génnee moom la garab gi dundee boobu itam un pour cent lay représenté mënta ëpp mënta wàññeeku moo tax nga dégg borom bi tabaraka wa taala ne maa tara fi xalqi rahmaanu min tafawutin nee na yàlla du ngeen gis ci li yàlla bind mu am lu ëpp wala mu wàññeeku day yem ni mu war a yem rek ni nga xam ne tailleur bi léeg-léeg bu la ñawalee amaana mu xat wala léeg-léeg bu la ñawalee amaana mu ëpp la mais yàlla nee na li ma bind moom dafay yem koj la précision de l'univers mooy jaaxal savant yu bëri yoo xam ne tey dugg nañ ci l'islam waaye gëm nañ na yàlla am na ndax l'univers bi ni ko yàlla tabaxee ni mu tegoo ci yoon borom bi tabaraka wa wax na ba tey ci alquran ne wala tufsidu fil ardi baada islaahiha bu leen yàq ci kaw suuf gannaaw bi ngeen fekkee suuf ñi defar ko ba àggeel e, gis nañ ne ngelaw lii ñuy nokki équilibre bi yàlla def pour ñu mën a jëriñoo ngelaw lii ndax ñun ak bàyyima yi dañoo soxla li ñuy tuddee oxygène gàncax gi te mooy garab yi ak ñax yi ñoom soxla li ñuy tuddee dioxyde de carbon xoolal ni yàlla liggéeyee foofu ñun dañuy jottalante masalan garab gi moom mooy sànni moom day sànni oxygène ñun ñu jël oxygène boobu nokki ko waaye buñ nokkee ba oxygène bi dugg li ñuy génnee waat si suñ te muy génnee suñ bakkan yi loolee dioxyde de carbone loolee la garab gi soxla garab gi moom loolu lay dundee nga xam ne ñoom ñaari ñaari muy muy dioxyde de carbon ak oxygène oxygène boroom xam-xam yi dañoo wax ni maanaam ci ngelaw li maanaam vingt et un pour cent lay représenté vingt et un pour cent boobu mënu koo ëpp ko ëppee rek boo ne boo kosee benn brin Albert rek addina bi yëpp sawar lay doon nga xam ne kon bu yàlla defutoon tey bàyyi mi ñun bàyyi mi li garab yi sànni ci oxygène yi di ko jël di ko jëriñoo kon amaana quantité boobu mu romb ko waaye garab yi itam un euh, maanaam dioxyde de carbone un pour cent lay représenté ci ngelaw li su fekkoon di dioxyde de carbone bi ñuy sànni garab yi du wut na ñoo koy jël loola ci musiba lay créé ci àddina bi nga xam ne benn baaxul ci ñoom ñaar yëpp nga xool borom bi tabaraka wa taala liggéey boobu mu def ci diggante bàyyi mi ak gàncax nga xam ne nit ñaa ngi dox am na ñoo xam ne xamul li xew looloo waral nga gis jardin yi dëkk mu ne ñu naan nañuy jëmbat ay garab ak jardin yi parce que garab yi ak ñun maanaam ñooy jokk ñooy jokkalante moo tax équilibre li ñu tuddee équilibre ci àddina bi maanaam àddina mën a màndaxe problème adni bi ñi gis tay li di kenn mënu laa wax toll manam réchauffement climatique bobu Chine da ci participer muy Amérique pays industrialisé ta manam adni bi xex nañ ko ba son waye bokku na ci yoy yëpp day ay musiba yoo xam li tuddé ay ay ay ay ay ay ay centre nucléaire masalan lu mel ay bombe atomique wala li tuddé ay radioactif wala ay mine yooyu yëpp nga xam dafa tasaro ci gox bi te yàlla dafa waxoon ne wala tufsidu fil ardi ba'da islaahiha waaye gis nañu aussi déforestation nga xam ne tey barab yi nga xam ne tey dañoo sëqoon maanaam bëri ay garab masalan fu mel ni àll Casamance bi ak yeneen gox yi nga xam lu mel ni fu mel ni Brésil seen àll boobu nga xam ne ni mu naatoon ci ay garab yooyu yëpp dañoo gis ne ñu ngi commencé di yàqu te dara warul ko lu dul rek maanaam réchauffement climatique waaye gis nañ ne glace gi nga xam ne moo nekkoon ci côté Sibérie dañoo gis ne mi ngi commencé di seey te loolu dara warlu ko ak géej yooyu yëpp tey maanaam dafa bëri lu ci dugg loo xam ne maanaam euh, ak yàqute la koo xam te dara warlu ko lu dul euh, doomu aadama rek moo ko def ci wutum koom waaye gis nañ sax boo demee ba ci mbay mi dañu gis ne tey mbay mi ñi mbay mi ñuy bay léegi boo ko jàngatee li ñu ëpp li ñu lekk lépp ay matière chimique la parce que mbay mi engrais bañ cey def yooyu ay matière chimique la da gis na léegi mbay mi ni muy gaawee màgg waaye boo demee tamit ci lu mel ni ci ci ci élevage da ngay gis na léegi façon yàpp bi ñuy lekk léegi lépp que ay matière chimique la waaye boo demee moom ba tey ci jën yi da ngay gis façon bi ñuy nappee yooyu yëpp nag nga gis ne li ñuy tuddee talawusul bii a nga xam ne loolu lépp doomu aadama yi maanaam euh, ñu ngi koy jëfandikoo te yooyu yëpp baaxul ci wéru maanaam wér-gu-yaramu doomu aadama ak li ñuy tuddee bouillon yi nga xam ne moo bëri ci suñu yi lu mel ni masi ay jimbo ay dollima ay aja ay ay ay ay ay ay ay ak yeneen ak yeneen yoo xam ne euh, masalan yooyu yëpp ay xeet la yoo xam ne baaxul ci yaramu doomu aadama te doomu aadama yi ñu ngi koy utiliser moo taxit ñuy gis ne feebar yi di feebar yi di gën di bëri nit ñi façon bi ñuy dee léegi dafay jaar da ngay gis koy dox dox ba mu yàgg rek mu daanu fekk faat na bu yàgg yu ñu tuddee ay cardiaque ak yeneen xeet yooyu yëpp dafa bëri te loolu lépp daal warlu ko lu dul xëy na façon ñàkk respecte environnement bi ñu dund waaye ñak tim bàyyi xel ci li ñuy lekk waaye tim li ñu ko yóbbooti mooy façon fàggunam alal ndax loolu rek moo ko waral te yàlla dafa wax ci alxuraan ne wa tuhibbuunal maala hubban jamman doomu aadama daa bëgg alal te itam doomu aadama doomu aadama ci boppam wa innahu li hubbil xayri la sadid doomu aadama aw yiw laa yes amul insaan min duwaayil xayri doomu aadama du yokkoot ci bëgg aw yiw yooyu yëpp moo ñi moo indi conséquence moo tax réchauffement climatique yi ñuy wax lépp lu koy provoqué xam nañ ko tey gis ngeen manifestation yi ñu def yooyu yëpp maanaam ñu ngi koy xeex te yooyu doomu aadama da ko war a xeex ndax yàlla nee na zaharal fasaadu fil barri wal bahri waaye bi ma kasabat aydi naas nee na day yàqute ci géej géej ci jéeri ji di am na ak ci jaww ji te dara warlu ko lu dul ci loxol doomu aadama yi la sosoo kon doomu adam dafa wara xamne moy responsable moy ki wuté yàlla ci ko suuf moy responsable l'univers bi moo ko war a garder moko wara ar ci lépp lu koy wara yak dako wara xex masalan fépp fo xamne manam foré dafa am wala wala garab wala ay ay ay ay ay yo xamne day tax dund bi mën a ci yoon yoyep ci responsabilité doomu adam la bo xolé tay fu melni Dakar tay ñun espace vert da ngay dégg sax espace vert yi ñu ngi ciy def émission sax espace vert sax ñun amuñ ko parce que Sénégal Dakar moom fu mu ne Dakar moom fépp amul amul amul fépp daanaka daanaka daanaka nit ñi dañ koy dëkk fu ñu fu ñu dëkk daal la ñuy wër te yooyu yëpp boo ko xoolee baaxul ci suñu dund ndax ñun ak gàncax yi dañoo war a jaxasoo mooy tax suñu dund mën a nekk xam nga yàlla dafa ci wax inna allah yuhibbu tawaabiina wa yuhibbul mutatahhirin yàlla daa bëgg ñi nga xam ne dañuy tuub waaye dafa bëgg ñi nga xam ne dañoo set ndax wax nañ na set waxoon naa ko léegi an nazaafatu min al iman waaye tim eh, set gi maanaam duwul rek maanaam ci jëmmi doomu aadama ji rek moo tax ñuy wax waaye doomu aadama tim environnement bi ko wër masalan ci environnement bi environnement bi ko wër tim dafa war a set ci biir këram tim cet gi da caa war a nekk ci bép gox bo xamné da fay dox ciet gogo war na fa nek lépp lo xamné ay déssé la ak ay mbalit yoy yëpp da ko war di sori yoy am fuñ ko war di dajale san tey boo demee fu melni Sénégal da ngay gis né nit ñi dañuy manam dañuy sanni ci mbéd mi xolé euh salt bi nga xamné mo nek ci mbéd mi nit ñi affronté ak mom tay tim li ñuy microbe microbe wala ay bactéries yi nga xamné ne joxé joxe nga xamné suñu bëdd mënuñ ko gis ndax yàlla dafa wax ci alxuraan ne falaa uqsimu bimaa tubsiruun wa maa laa tubsiruun maa ngi génn ci li ngeen gis ak lu ngeen du gis doomu aadama am na yoo xam du ko gis wala boog am na ci yoo xam ne pour mu man koo gis sax foog mu am microscope yooyu yëpp nag dafay sosoo ci mbalit yeeg ci salte yeeg ci la ñuy juree nga xam ne kon mën nañu mën nañ te te buñ juree ci yooyu dañuy jaar ci dañuy jaar ci ngelaw li mën nga koo jël noog ki jël ko yooyu yëpp kon da ngay gis na set bi wax du rek set ci waaye set ci ba ci yéer yi ngay sol lislaam yëmut foofu mais da ci ba ci yéer yi ngay sol dafay set waaye ba ci barab barab yi ngay yi ngay yi ngay makkaan barab yi ngay dem tim dafa war a set ba ci li ngay lekk li ngay lekk ci boppam da ko war a xool li ngay lekk li ngay lekk ci boppam li lépp loo xam da koy dugal ci sa gémmiñ rek war nga koo settantal ndax cet ga ca am na ci ni nga ko waxee tim ci wàllu togg tim Euh, togg tamit dafa am degré boo xam ne am na microbe yoo xam ne effectivement amul am na degré boo xam ne ci tàngoor bu ci àggul daanaka mun munu munu munu munul leen mënul leen a faat su ko defee yooyu yëpp nag ay jàngat la yoo xam ne euh, doomu aadama bi ko yàlla joxe xel euh, jox ko xam bëri na loo xam ne ci boppam ci gëstoom ak ci góorgóorlum bu ci defee effort rek gis ne gis solution te yooyu yëpp nag dafa nekk loo xam ne njàngaleem yàlla ak orientation borom bi tabaraka wa taala da ciy feeñ ci waxtu ne ndax doomu aadama lu mu mën a xew yàlla yàlla gën a xam boppam huwa aalamu bikum is ansaakum min al ard wis antuma ajinatun fi butuni ummaatikum yàlla nee na maa leen gën a xam man ma leen sosoon ba ngeen nekk ba ngeen nekkul dara ma sos leen dégg nga mën a hal ata ala al insani xiilun min ad dahri lam yakun sayan maskora nee nit koo gis muy dox ci kaw suuf am na jamono yoo xam ne nekkul di lu ñu tudd gannaaw go nag ma sos leen indi leen ci kaw ngeen di dund kon maa leen gën a xam seen bopp lu ma ne leen na leen ko jege rek baaxul ci yéen lu ma leen lu ma leen lu ma leen joxeñ loolu mooy li gën ci yéen kon loolu lu mat a bàyyi xel la e, ci mm, pour war na la rek la yàlla lépp lu mu tere lu ne rek ko war a baax lu mu lu ne lu mu tere moom dañ ko war a baax lu mu digle lu ne nañ def luñ mën e, gis nga bim bim ne xorrimat alaykumul maytatu wa damu wa lahmul xinsiir dama ñëw rek ci yàpp mbaam pour jox la ci misaal xam nga bim bim araamalee yàpp mbaam bim araamalee yàpp mbaam xurrimat alaykumul maytatu wa damm wa lahmul xinsiir yàlla nee na araamal naa ci yéen yàpp mbaam léegi xam nga biñ demee ba xam-xam bi ñu tuddee xam-xam bi ñu tuddee la biochimie ak la microbiologie ak la génétique xeeti xam-xam yi la chimie xam-xam yu ñoo wone lu bari ci li waral ndeke suñu borom bi tabaaraka wa taala araamal lekk yàpp mbaam eh, gis nañ ne mbaam ci boppam dafa am eh, benn ci yaram wi lu ñuy tuddee acide urique arab di ko wax himdul bawli léegi acide boobu Euh, su fekkee ne bàyyi mi masalan doomu aadama ak xar yeeg nag yeeg fas yi bu ñuy gaanuwaay acide urique boobu day génn ànd ci saw mi maanaam quatre vingt dix pour cent yëpp day génn bu dee mbaam xoox nag sens contraire moom am mbaam xoox moom euh, moom deux pour cent rek la ci reins yi di génnee maanaam reins yi mënut filtrer loolu lu dul deux pour cent li ci des lépp nag day des ci yaram wi alors nag loolu muy def ci yaram wi nag moo waral mbaam am ay conséquence ci lekk yàpp wi moo tax nga dégg borom bi tabaaraka wa taala ne laxmul xinsiir yàpp mbaam la yàlla aaye léegi nag loolu nag euh, dafay jur ay ay feebar ay feebar yoo xam ne mbaam a koy joxe e, bokk na ci rek e, ci ci ci feebar yooyu boo demee ci téere bi nga xam ne ci téere bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee alquranul karim wa tibbul xadis docteur Idriss Youssouf di di borom xam-xam bu mag bu ñu xàmmee daf cay wax ne nga xam ne li scientifique yi ñoo ko indi dañoo wax ne eh, feebar yi nga xam ne mbaam xuux dana ko joxe bokk na ci tonia solium arab di ko wax ak duudu ak soretia bokk na ci feebar yi mooy trichines arab di ko wax al al al xuwaysilaat bokk na ci ba feebar yi muy jox ba tey mbaam xuux trichinose mooy arab di ko wax ba tey trichinose la koy arab di wax ni koy France di waxee waaye bokk na ci feebar yi méningite du porc dégg nga baatu ko sax feeñ na ci baatu porc ci bopp mooy mbaam waaye ci yi muy joxe la peste du porc gis nga baat bi ñëwaat na ci bokk na ci feebar ba tey rouge du porc yi ay feebar la yoo xam ne euh, mbaam xuux moo koy joxe euh, léegi nag euh, xam naa kon nit mën naa laaj ne waaw lu waral mbaam xuux mii di joxe feebar yi ba àggel ba pare nag nit ñuy continue di ko lekk man na la loolu kay tontu la yomb na paquet de cigarette bi nga xam ne dañ cee def na la cigarette day rayaate def ci ay photo yoo xam ne da ngay gis cancer ñi ñi ñi muy jox cancer ak feebar yi muy provoqué di nit ñaa koy jënd kon nag kon doo kon da nga cee ne li àll yàlla wax ci alxuraan ne innal insaana li rabbi lakunuudun doomu aadama ku dëgër bopp la loolu moo ci ne te donc boo xoolee mbaam xuux non seulement salte gi mu salte mais aussi amul benn yonent boo xam ne mos naa yeer mbaam xuux ci ci mos naa yeer mbaam xuux te itam eh, problème bi posé mooy mbaam xuux su fekkee ne am na bàyyi bu gën a jege nit nit ñu dañuy jàpp golo la mais mbaam moo gën a jege nit parce que mbaam xuux fi ñu toll këru mbaam maanaam xolob mbaam xuux mën nañ koo greffe ci nit mën nañ koo greffe ci nit mu mars xam nga yaramu doomu aadama leen lu ci dugg lu ne yaram bi di koy résister mais mais mbaam xoox ab këram boo ko greffé bi ñu ko greffé ci doomu aadama masalan doomu aadama boo xam ne dafa amoon feebar boo jëlee xolam mbaam monter ko ko day dund ñaareel ba doomu aadama bu lakkee bu fekkee yaram bi dafa lakk euh, yaramu deru maanaam deru mbaam xoox boobu moom lañ ci greffé mën nañ ko greffé ci yaram bi nga xam ne kon bu fekkee ne am na mm, bàyyi bi gën a doomu aadama mbaam la mbaam xoox la kon nag xam naa loolu rek la ñu waxoon lay ci liñ ci yokk bu ñëwee bu ñëwaatoon ci lu tax lislaam ne eh, bu jigéen gisee mbërëg baa mu gis dértu wasin bu leen leen jege ba ba ba bàññee laab ba tey loolu eh, la génétique ak la microbiologie ak la biochimie indi nañ ci ay firnde yu leer nañ ba nga xam ne alxuraan ji waxu yàlla la alxuraan ji waxu yàlla loolu science moderne ñëw na confirmé indi ay leeral yoo xam ne li tax yàlla araamal loolu araamaloon loolu nag bu leen jege nga xam ci sariya dañ lay wax sa jigéen sa jabar su gisee mbërëg ba am gisee tuuti li ko dalee ci bëti oom yi ba ci ba ci jumbax bi yëpp nañ la nga jege ko ndeke la yàlla tere ko tey am na ay conseils xam naa du ñàkk yéen beneen jotaay incha allah ñi détaillé ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. be